alhamdulillah suma wa salam ala rasulillah soxna Kiya ñi fay di nuyu mbolom internet yi euh, waaw soxna Roqaya loolu lu lu lu lu doy euh, télévision dafa am aspect bu si yaru télévision mën ni yar ñetti moom dina ci jël bu am solo ndax loolu moom lañu gëm mooy suñ réalité te soo seetloo ni ñuy dundee sax mooy bu njëkk benn lay nekk ci saal bi euh, xale yi duñ ci am accès léegi nag koo gis ci biir néegam sax mi ngi ceeg benn loolu dafay wane ni gën na libéré ci ci ci nit ñi ba tax na loolu bu amee bu xasee am rek foog ñu veiller ci li ciy jàll li ciy jàll nag mën na tudd série mën na tudd documentaire mën na tudd leneen ak leneen parce que télé dafa war a yar a yar waaye warul yàq yar te ñun suñ télévision yi euh, da ngay seetlu ni que li ñu gën mën mooy destabilise ak yàq yar te ñaar yooyu benn baaxu ci kon nag série moom mënuñu ko bonal ndax euh, euh, jàngale mën na ci am kon nag kenn ku ci nekk yow yaay xool sa responsabilité ak sa degré dund ci sa ngëm nga jéem ko instauré ci support bi nga xam ni yaa ngi koy mëne mu jëm ci lool kon daal lin lay wax mooy lépp luñ ci wane lu dëppoowul ak sunu culture jaaduwut lépp luñ ci wane lu dëppoowul ak sunu yar bi méngoog sunu diine jaaduwut lépp luñ ci wane loo xam ni dafay blessé euh, ngëm kenn rek ci bu mën a doon jaaduwut soxna ki yàlla waaw mais loolu loolu hypocrite te ku def analyse boobu sax def nga analyse bu gàtt waaw parce que nit nit ku nekk am na lu muy dund loo xam ni kenn waru ko génne loolu mooy li nekk euh, li tax ma ne am na lu muy dund lu kenn warte génne mooy fóonante ki koy def ci biir it da koo def ki mu dagan ki ko def ci biir def ko ku mu daganul loolu jaaduwut ki ko def ci biti def ko ku mu dagan ku ko ku ko ku ko dagan loolu jaaduwut li ma la bëgg wax mooy euh, fóonante même su fekkee nit war na ko def daf ko war a def ci anam bu am sutura ndax nit ñi duñu bàyyi ma te yàlla am na fu muy wax ci alquran ni am na nit ñoo xam ne dañu dem ba mel ni bàyyi ma in humu illa kal an'am ba yàgg sax alquran ni bal hum adallu sabil am na dem nañ sax ba bàyyi ma tane leen parce que bàyyi ma moo daan def yenn yi ci mbedd mais xam nga ni yow su nit su ko bàyyi ma defee nit am xel bàyyi ma amul xel nit dem ba def ko ci mbedd mi bàyyi ma bi moo ko tane parce que su bàyyi ma bi amul xel du ko defee foofu donc kon képp koo xam ne yaa ngi def lenn muy ñaawteef nga def ko publiquement bëgg ko layalee nit ñi dañ koy def loolu jaaduwut ndax gis nga fi mu nekk ki laqatu mooy yàlla sax kooku la yàlla bu jéggloo mu jég moom lay gën a toloore ki mooy ci biir ba pare génn génne ko kooku bu boobaa dañu wax ni dafa féttéerlu et li mu def it dafa am influence maanaam def naa nangam banaliser ko loolu yaa ngi koy influence ñeneen ñu ko def bu boobaa nag bàkkaar boobu yépp ci sa kaw loos lay tegu mooy ku créé lu baax def lu baax nit ñu roy la yàlla fay la yiw fay la ci yiwu sax ña def yiw ku def lu bon banaliser ko génne ko en public yàlla fay la ñaawteef ku def mbon banaliser ko génne ko yàlla fay la ñaawteef bi ña def fay la tam ña la ca royee ñaawteef ban ca def mm. loolu mooy li wóor